croix rouge ñëw na buñ tolluwaatee si troisième mois bi incha allah di ngeen gis bàjjenu gox yi mais di ngeen gis relais communautaire yi nga xam ne ñu ngi si dëkk bi dinañ impliqué képp ka nga xam ne rek si dëkk bi nga bokkul parce que set dafa baax parce que boo setut mënoo wér agent de santé la boo setut mënoo de wér kon si set gi la ñuy njëkkee bale bi rafetlu nañ ko trop di sant monsieur le maire parce que accompagné nañu tey jii jox ñu ay moyen mais sant jigéen ñëpp ñi nga xam ne rek génn nañu soo limee da ngay juum mais sant nañu ñëpp di sant la di sant jeunesse bi di sant xale yëpp étudiants yi ñëpp daal ñu ngi leen di sant di ñaan ci yàlla yal nañu yàlla may kattan ñu bale bale waat ba mu set comme ni mu ko waxee mandat monsieur le bi balaa moo jeex yal nañ fi def la nga xam ne lu kawe suñu njort lay doon waaye lu ñuy gis la nga xam ne dañuy naan yéex nañoo am Galaba ñëpp a ko bëgg góor jigéen mag ak ndaw ñun ñëpp a ko bëgg mais bu fekkee ne dañ ko fal ba pare ñun ñoo ko ko ngir mandaam bi mu def ci lu raw li fi dem am suñ ko jàppalewut mënut a dem Galo kese mënul liggéey dëkk bi ñun ñëpp ñoo si war a jàpp pour mu mën a liggéey dëkk bi am euh, résultat yi nga xam ne ñëpp dañuy ne yii résultat mosu fee am kon diñ koy ñaanal bu wér a wér ñaanal suñu bopp it nag ndax ñu mën ko accompagner jàppale ko ba mandat bi mu jeexal ko am ñeneeni mandat monsieur président de la république gis li ni def si dëkk bi fal na ko ministre mais mu falaat ko yeneen ak yeneen mais falaat fi ñeneen ñu am yeneen yeneen ak yeneen ah di ko rafetlu rek parce que dafa nekkoon loo xam ne nii maire moo ko waroon jël en charge génne ay moyens jigéen ñi ñoom njëkk am xalaat boobu jigéen Gallo Boy suma ma limee damay juum mais ñoom ñoo ko njëkk am initiative bi def ko une première édition bi ñëwaat nekk deuxième édition te am yéen ak ñoom nee na ñu ne chaque mois pour ñu def ko kon da nga koy rafetlu bu baax a baax a baax di wax ne lii liggéey communauté la liggéey communauté doo ci xaar fay ba xaar dara da nga sa temps jox communauté bi communauté bi nag mooy mooy ville de Mbacké mooy maire Mbacké nga jël sa temps def ci kon loolu ñun ñoom liñ ciy séntu rek mooy fay yàlla parce que ku ku defal dëkk bi sa bopp nga ko defal maire bi nga ko defal maire nga ko defal kon yaakaar naa ne dëkk bi set ñëpp lañ ci am te dañ wax ne la santé avant tout kon wér-gu-yaram ñi commencé ak cet ker bi nag bu ñu gën a seetlu mooy fii gën a tilim mooy marché aussi boo xoolee ku xëy da nga ñëw marché kon jaxasoo wu fii kon jàngoro développé wu ci marché la gën a gaaw ko ci kër yi wala ci koñ moo tax daal ñu concentré wu ci marché bi fexe chaque mois ñu ñëw defal ko ba mu set ànd ko jigéen ñëpp nag su ma limee damay juum mais en tout daal leen sant leen gërëm seen engagement di ñaan aussi chaque mois rek ñu ko andi nii ñaar édition yi biir di ñëw nit ñi gën a bëri bu gën a réussir incha allah accompagnement bi mairie logistique yaa ngi gis oto baa ngi nii gaare ak matériel bi loolu moom mairie moo moo ci jàppale ci logistique bi am na aussi des bonnes volontés su ma limee damay juum ñi jënd nañ ndox ñi jën nañ leneen lañ ñi jënd nañ bale pour accompagner jigéen ñi mën a bu mën a permettre dëkk bi gën a gën a set mais également ñu nekk loolu lu tax déployé wuñ dafa mën a passé une convention ak ICG dans les prochains jours incha allah ñu gën a fi ñëw formaliser les pare renforcer la logistique oto yi njëkk yi mbab yi day taw taw loolu nag dañ ciy yóbbu population mbab yi parce que mën nga am logistique mën nga am ay nit engagé mën nga am ay bale am ay brouette mais population yi seen bopp ñoo war a gën a daal ñu bàyyi xel te xam ne pour les suñu forme am responsabilité ci mairie Mbacké. waaye bëgg mooy gouvernement déjà dans les quartiers ndaxte am nañu culture bale am nañu culture seen procès am nañu culture également de bale njëkkal waaye dafa doon dafa doon intéressé boo defee xool au plan de de déploiement avec les messagers au niveau du marché au niveau des quartiers pour que également oto yi a ci quartier yi te mu ngi def jéem oto yi parfois dañ ko gis parce que rek plan bi ñu mettre en œuvre on n'a pas encore commencé à exécuter moo tax ay nit pour jàppale leen ci liggéey ba pare oto yi ñu dugal waa Mbacké parce que moom on en a trois danañ engagement yokk yeneen yeneen ñetti oto loolu jàpp naa ne incha allah dina doon avec un bon plan de de de de déploiement jàpp naa ne quartier yi avec un système de ramassage bien précis am nañ yaakaar ne quartier bi dina da ngay nettoyer tey suba ñu ñëw jàllale mbay bi wala ñu sànni ko loolu ñu ne. sa bopp moo koy moo koy moo koy njëkk askan wi seen bopp ñoo war a xam ne dëkk bi dañ ko war a sal daaw la set ku nekk si jom am ci responsabilité. boo waree am point de rassemblement boo ñëwee nga tuuti normalement mu bañ a déborder bu boobaa en tout cas ñu seulement ça va parce que jàpp naa ne dëkk bi